ليليا وجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيامن خليل يا عيا وانزلا بالتواون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأنبياء وإمام المتقين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين wa baax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk jullit yi fi daje yépp jiital ci nuyoo bi imaam yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci sunu kanam te ka nekk ci bopp di imaam alxaaji Malick Niang ak mboolem imaam yi topp ci ginnaaw bi yépp ñu nuyu leen ziyaar leen ñaanal leen yàlla defal leen ijaaba ak xabul ba lépp lu ñu jiite jaami yàlla yàlla na ko yàlla nangute ful ko ñaan yàlla mu dàqal leen seytaane ak bakken ba yàlla bu ñu gis seen bopp ñu nit yàlla bu ñu gis suñu bopp nuyu mag ñi ziar leen jiital ci bàyyi alxaaji mbay maroon ñaan yàlla dollee guddal seeni fan te yokk seen wér ñi tawat te nekk ci kër yi ñaan sunu borom delloo si leen ci mbooloo mi ci jàmm ak mboolem ku tëdd ak lu la mën a tëral ak foo mën a tëdde yal na la yàlla yëkkati yàlla saafara la ci barkeentu sallallahu alayhi wa sallam ñaanal mbokk yi génn àddina yal na yàlla sunu borom yeesal yërmande ak njëggal ci ñoom yal na yàlla jéggal leen bi jaahi rasulihi sallallahu alayhi jéggal mbooleem ñu nekk barzaq ci darajay sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla nawet bi yàlla na ko yàlla àggale ci jàmm yàlla wàcce ndoxu xéewal ndoxu barke la cay bàyyeekoo ci meññeef ñu koy jëfandikoo yàlla ñu ci yàlla boole te bu ñu ko jëfandikoo yàlla ñu ci yàlla xiir ci ñu jaamu ko ci ci barkent bi sallallahu alayhi wa ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm def ko ci àddina bi ñaan sunu mbokk yi nga xam ni ñu ngi waaj ak ñu nekk ci yoon bi di dem ca Tuuba yal na yàlla yóbbu leen ci jàmm yàlla gunge leen ak jàmm ba ñu àgg ci jàmm bu ñu demee ca dëkk bu tedd ba ñu fekk fa jàmm yal na yàlla nangul leen lépp lu ñu fa jaamu yàlla te bu ñuy dellu si bàyyi fa jàmm bu ñu ñëwaatee seen njaboot fekkaat fi jàmm dund ak jàmm googu ba mu yàgg lool ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu tey nag ñu ñëw di waxtaan ci al islaax bayna naasi xam ni bu doon dëkkandoo bi ñu doon waxtaanee ajjuma yépp bu doon tabax la la koy rafetal walla design bi ciy dem mooy al islaax bayna naas mooy yéwénoo bi nit ñi war a yéwénoo jullit yi war ko yéwénoo xam ni yeneen bi dafa wax ne al islaax bayna naas te na mu waxe woon wa min annaasi man yaqulu amana billahi wa bi yawmi al wa ma hum bi muminin am na ci nit ñi ñoo xamni ña ngay addu ni ñoom kat gëm nañu seen borom gëm nañu yalla ay yalla neena na man mi xam fi iman di nek vérifier na ba xamni ni ñooñu kat lañuy wax ci seen kaddu rek la yam waye ngëm-ngëm nekkul sama digënté ak ñoom loole yalla nañ ci yalla musal kon suné al islah bayna nasi, yalla dara umpuko ko ci nekkini doomu aadama yi dara ump ko ci ay jaamam ndax xam na ne ci biir nit ñi am na ñu ko gëmul am na ñu ko jaamuwul waaye nekkin bi nit ñi war a nekk ci seen biir mu nekk benn cohabitation boo xam ni dafay nekk cohabitation sociale cohabitation de paix et de joie boo xam ni julit yëpp wala nit yëpp ñoo ko war a bokk ci dëkkin bi leen yàlla boole ngir ñu rafetal ko te sàmm ko ku ci nekk bàyyi sa xel moo tax muy wax ci alquran ni laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaaxi bayna naasi yàlla nee na damay tere sax mbooloo toog ñaar jóg di déyante ndax bu ñuy déyante xëy na mën nañu indi sikki sàkka ci biir mbooloo ma waaye ba mu des aw amara bi sadaqatin aw maxruufin aw islaaxi bayna naasi maanaam digle ci jël sa alal def ko sadaqa walla ci nañu dimbali nit wala ci wax joo xam ni li ngeen di déyante bu tasaaroowee ñëpp bëgg ci ndax njekk lay doon ci ñëpp wala diggante yoo xam ni xaw nañu am safaan nga jóg sol sa dàll wala ngeen waxtaane nan lañuy def ba yéwénoo ci ñaar ñi nga xam ni tabaarakallaahu dañoo juyoo moo tax yàlla di wax ba tey ni wal islaahu xayrun dara ëppul yiw dara ëppul yiw jóg sol sa dal di yéwénal ay diggante moo xam diggante famille la moo xam dëkkandoo la moo xam tabaarakallaahu eh, ay bokk yàlla boole la ci wàllu liggéey ñu am jafe-jafe wala tabaarakallaahu eh, am lu ñu séq diggante ba am jafe-jafe wala muy sëy bu am jafe-jafe tabaarakallahu wala muy bàyyi ak doom yooyu yépp yàlla sunu borom nee na nga jóg jéego ci say jéego dara ëpp ko yiw ci jéego boo mën a jéego moo tax sunu borom di ñu dénk ba tey ni fattaqullaha wa asliu zaata baynikum فاتقوا الله آه، يالا دافاي ني افيرتيسمان ما بارا نك مو جوخي امر موي اذن بو خامني كوتي نيك وارنا لا سا ديغنت اك سامروم مو خام سا مبوك لا سا مبوك ديريت لا سا مبوك دك لا سا مبوك باس باس لا ولا سا مبوك جوليت لا يالا ني نغا فخي با سين ديغنت نا نيك ديغنت بو يو na nekk diggante bu rafet moo tax mu dellu di waxat ba tey ni innama al muminuuna ixwatum fa asliu bayna axawaykum te la mu ca teg mooy wattaqullaha fee daf ni fattaqullaha wa asliu zaata baynikum fii mu ni innama al muminuuna ixwatum waaye nag fa asliu bayna axawaykum jullit yépp ixwatun ay mbokk lañu yàlla nag nee na maa ngi leen di dénk fa aslihu na ngeen rafetal mbokkoo googu muy dëkk bu yàgg muy dangeen na mayante ay soxna muy dangeen a bokk askan muy dangeen a bokk réew mi muy da a bokk tabaarakallaahu ci lépp loo leen mën a séq yàlla ne la ma ca digle ci seen biir mooy ak rafetoo ak rafetoo mu den wax mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nga rombu sax sa mbok julit ni ko assalamu aleykum kullu salama min an-nas alayhi sadaqa neena bo rombe sa mbok julit ni ko assalamu aleykum neena kalimatu salam boobu yàlla daf la koy bindal comme ku jël alal saraxe ko mu ni itam jant bi fenkul ci bés boo xam ni doomu aadama bi mi ngi maandu ci diggante ay doomu aadama nga maandu ci diggante doomu aadama yi maandu ci diggante jëkkër ak soxnaam maanu ci diggante frère ak frère am maanu ci diggante sër ak sœur am mbaanu ci diggante doomu aadama yépp nga fexe ba boo ci addu ci ay diggante nga wax lu baax wax lu rafet wax luy boole te bañ wax luy taqale nee na donte sax danga yor sa oto wala nga yor sa saret wala nga yor sa fas nga romb sa mbokk jullit muy dox nee na nga taxaw ni ko ah, mbokk foo jëm mun la bërëb sangam nga ni ko yéegal ma yóbbaale la mu ni loolu tamit dañ la koy bindal comme saddaxa muy sarax nee na wala nga yomb romb nit mu yor lu diis nga ne ko sëriñ bi yow kat li nga yor diis na de xaaral ma wàññel la bagaas xaaral ma jàppale la loolu ci al islah zaat baynakum la bok moy ci rafetal seeni diggante wala sax nee na mu nekk kalimatun tayiba wax ju rafet tente bi sallallahu alayhi wasallam nee al kalimatu tayiba sadaqa nee na wax ju rafet sarax bu sunu média yi li ñuy siwal lu ci ëpp waaw damay wax ne Sénégal depuis deux mille vingt ak léegi bi corona amee ak léegi dafa mel ni musiba daf ñu tàbbi seytaane dafa dugg ñëpp waxante lu bon xawente sutura weerante ci écran weerante ci plateau télé lu waay xamal sa mbokk wax ko te dara waralu ko lul intere rek te intérêt yépp intere àddina la yàlla nag wax na ni moom yàlla ne képp kuy def loolu dina la mbugal ci adina dina la mbugal alakhirah kon nak lu jara moytu la yenen tri sallallahu alayhi wasallam neena nee na ci al islah bayna nas moy jam bu nek li nga xamal sa mbokk jam nga sutural ko la yusuru abdun abdan fi dunya الى ستره الله يوم القيامه تم بوكي كو غيس رك امنا لومي نيب بل الانسان على نفسه بصيرا نيت كو نيك امنا لو ديف بيس يالا وكان الله بما تعملون بصيرا يالا ميغا خامني بتم تيغيكو ول سي كين امنا لومو خامل مو سوترال نوني nga wara suturalé sa mbokk doomu aadama rawatina muy sa mbokk jullit rawatina muy sa mbokk deret rawatina muy sa mbokki dëkkandoo waaye léegi boo seetloo dafa mel ni nit ñi njullit gi ñuy woote dafa mel ni seen kàddu rekk la nekk seen làmmiñ waaye yàqante der weerante sosol nit lépp ngir intérêt te am na ay part de responsabilité yu ci am yoo xam ni ku ci nekk la tey sa wareef te nga war ca taxaw ba loolu dañ ci pénc mi te defoo ko moo xam état la moo xam kilifa diine la bu ëllëgee dinga nga layoo ak sa borom subhanahu wa taala parce que ku ci nekk y a des partage te ñoom la ko yàlla gaar seen diggante man yàgg naa wax fii nii Sénégal bu doon réew mu normal la am na yenn rajo yoo xam ne yenn émission yoo xam ne du fa am ndax léegi am na émission yoo xam ne daanaka weerante la topp kaa lan mooy topp kaa yooyu bu doon réew mu sérier la yooyu émission dañ koy censurer warul daw warul daw waaye li ngay seetlu ba seetlu ko mooy état yi nga xam ni ñoom ñoo war a contrôler loolu am ay corps yu contrôler kaddu yi war a génn ak yi warul génn ñoom li leen intéressé rek mooy kuy wax ci ñoom lu baax ñu génne ko kuy wax ci ñoom sax te ñu jàpp ne yow bokk ak ñoom xalaat ñu def la noonu buñ la mënee faagaagal faagaagal la buñ la mënee tëj tëj la buñ la mënee noppiloo noppiloo la waaye keneen kuy wax leen nag seen yoon nekku ci te dañu jël ay koor ko ci réew mi di leen fay alal lu mel ni ARTP nga xam ni képp kuy wax ci média rek ñoom war nañ la saytu li ngay wax mais réew moo xam ni toog nañu ñaari at li ñuy wax bila faida dara amu ci farata ci senegal dara amu ci avancement ci sa lu ñuy jur mbañeel lu ñuy jur noonoo lu ñuy jur ñaaw téef rek lay jur ci ab réew loolu yal na ko fi yàlla yemale te yàlla musal ñu ci te képp kuy jullit nag boo ci génnul na nga dàq julli ñëpp na nga dàq aj màkk ñëpp na nga dàq woor ñëpp mais dee moo la tee dem safara parce que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla mayul benn jullit muy yëkkati kàddu gu ñaaw di ko jëmale ci mbokk jullitam al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yaddihi moo tax sayiduna muhammad di ñu dénk ni al muslimu xaqul muslim mu ni seen àq yooyu nag juróom la ba ca njëkk mooy raddu salaami بولا نيت السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بوكو مون لو غاتال لو غاتال لو غانيكو وعليكم السلام باسكو نيت رومبو لا السلام عليكم موتاخ لا يننت بي دون تيري صلى الله عليه وسلم ني مويتو لن توغا يو مبد ديغا غيس ني توك تي مبد نيك تي لو خامتيني ورانتي يو كين خامول nit romb leen ne leen asalaamaaleykum duñ ko tay duñ ko tal sax fay te boo leen ko fayul am bàkkaar parce que waraddu salaam fardun fa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha wala sax nga ñu toog ci mbedd nit di ñëw ngeen koy jëw di ko jëw ba mu nuyu leen doo leen ko fay am ñoom dañ lay jëw di la jëw di la xulli xool sa catu bopp yi ba sa catu tànk yi nga romb leen nuyu leen sax dañuy patin duñ la fay waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ni ku mënul muñ ku mënul muñ toogaayu mbedd na nga ko sàmme ak abdul basari wa raddu salaami ak lan lépp loo xam ne dafa nekk ci yoon te mën a gàllankoor sa mbokk doomu aadama nga jële ko fa mu ni bokk na ci li rafetal loolu tamit ci ci li ñu séq ñun en tant que jullit ak moroomam wala sax doomu aadama ak moroomam mooy wa iyaadatul maridi mooy nga seeti sa dëkkandoo bu feebar wala sa mbokk bu feebar bu nekkee ca hôpital ba bu nekkee ci kër gi moo xam dafa tële ci ordonnance wala dafa tële ci dépense wala ci faj loo ko ci man nga jàppale ko te yàlla tax waaye Sénégal li ñu gën a man mooy seetaan ku de ku feebar ba dee ñu ñu dañ koy dëj lu nekk nag ñu indi yeewi nag wàcce saako ceeb ku nekk di wax wax ju bari te fekk l'essentiel bi mooy kii kat amoon ngeen ay moyens yoo leen ko jàppalee faj ko mais neen koo seetaan ba mu dee ku nekk nag di ñëw di wane sa bopp ak di wane jomma ñaaw loolu yenent bi nee na bokkul ci islaax zaati bayni waaye bokkul ci àq bi jullit séq ak mokk jullitam wa itbaaul janazati aw wa itbaaxul janaizi mooy sa mbokk jullit bu génn àddina yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo amul ngant bu ñu koy yóbbu nanga nga fexe ngalawaay nga bokk ca ña koy gunge su fekkee ngant dabu la nee na wa ijabatu daawati nee na sa mbokku dëkkandoo bu la woowee ak bépp responsabilité boo mën a am sa mbokku dëkkandoo yónnee la woo la ngir soxla la yenent bi nee na àq la ci yow nga dem wuyu ji bu dee dalaa wax soxla boo ko mënee nga def ko bu dee def na laaj xalaat soo ko manee tabaarakallaahu loo leen waxtaane rek loo ci man te jullit war ci taxawu mbokk jullitam wala dëkkandoo wala doomu aadama fa tabaarakallaahu nga def ko nee na sax ba ci li ñuy tuddee ak tasmit mooy ku tisoli nga toog ak nit mu ni mu tisoli nee na fa xul bu ne alhamdulilah lan nga koy wax bu nit tisoolee ni alhamdulillah lan nga koy wax mooy yarhamukallah mom min la yaxfiru Allah lana wa lakum wa yuslih lakum amalakum yal nañu yàlla djegal te bolé yéwénal suñu mbir su ko defé mbokk yi xatxaanal waxt sala waxtu yu jot na ñu ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla may dégg ak top di fàttali rek le 22 octobre imam Seydil Hadji Malick Niang ak Baye Mbaye Morone ak ñi séq jumaa ji yépp wax nañu ni dañoo bëgg a def ay ñaan fii ci jumaa ji ngir fas yéene tàmbale liggéey jumaa ji ñu jàpp ko nag le 22 octobre di ñaan yàlla yàlla nañu ci yàlla yóbbu te ñu fekk ko ñun ñëpp message bi nag mooy yëgle ci koñ bi yépp képp ku yégle rek ku dégg rek nga yëgal ko sa morom te fàttali ko amul mag amul ndaw képp ku dëkk ci quartier bi ak képp kuy jullee ci jumaa ji loolu mooy sa invitation du ay carte ñu joxe du ko jox kenn dañu fàtt jotal rek ngir ñëpp bàyyi xel ni ñaan yi ñuy def mooy jublu ci ñaanal mag ñi nga xam ni ñoom ñoo sancoon bërëb bii ci seen seeni moyen ak seen pas-pas te yàlla dogal ñu nekk barzak ñaareel bi mooy ñaan liggéey bi ñu tàmbale ko ci jàmm àggale ko ci jàmm ñëpp fekk ko ci jàmm kon loolu la vingt 22 octobre la ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla mottali te ñëpp fekk ko incha allah beneen bi daayira muxlisina wala muxlisaat dañu am conférence fii bu ñuy def buntu kër Baye Abdoulaye Gadiaga radiallahu anhu mu dend ak kër ancien maire Abdou maane yàlla na yàlla yërëm ko te jéggal ko nee ñu koy def altine le 4 septembre ginnaw buñu julé takusan ba pare ñi ngi koy yëgal mbokk julit yi diko yëgal mbokk talib yépp inshallah taala muy laylatul katmiya buñu defal sayyidina cheikh ahmad tidiani sharif radiallahu anhu ñi ngi koy yëgal ñëpp yàlla nañ ci yàlla yobbu jàmm inshallah le 14 septembre dañuy defal fi mam abdou aziz ñaan wazifa ak wàcce kamil ak nañu ko doon defe ku am yére bu baax mo xam yére xale wala mak wala jigen wala nga am kilo ceeb wala paquet suukar ñi ngi lay ñaan nga indalé ko à partir de 9 h 30 10 h ñu wazifa jàng kamil yene ko alxaaji abdou yene ko réew mi ak kilifa yi ci réew mi yépp waye jël sarax bobu jox ko nit ñi comme nam ko don defé ci al islah bayna nasi yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm wa ma zalika ala allahi bi aziz السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلى يا عجا وانزلا بتواوني تواوان فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بتواوني